salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur u euh, Leral TV euh, ñi ngi leen di nuyu di leen ziara Euh, ñoo ngi fii tey ci dëkk bu sell bi nga xam ni moom mooy Sokone Sokone nag euh, bu ñu ko déggee xel yëpp dafay dem ci góor yàlla bu tedd góor yàlla bu màgg góor yàlla boo xam ni euh, reconnaître nañ ko sur le plan national mais reconnaître nañ ko tamit sur le plan international ndax ci dimension yi nga xam ni moom mooy yi mu incarné ndax dafa nekk un homme un saint boo xam ni multidimensionnel la multidimensionnel à travers ses waaye multidimensionnel à travers le travail colossal qu'il a fait pour tout la umma islamique loolu nag buñ ko déggee moom mooy lan mooy xel yëpp dafay dem ci téere bi nga xam ni téere bu màgg la di Diyaa'un Nayrayni aljaamiu bayna ulumi taifatayni di téere boo xam ni li ñuy wax tey dañ naan ub na làmb xam-xam ub na làmbi xam-xam nag ci lan ñëpp ñi nga xam ni ay boroomi xam-xam lañ ci àdduna bi ñoom ñoo seedeel téere bii ni ah, bi ñu defee gëstu ci wàllu tafsir def gëstu ci wàllu exégèse gis nañu ni téere bu complet ni diya un nay rey ni gisaguñu ko moo tax naar ba ibnu fata al alawi waxoon ni diya un nayrayni ra'atuhu ayni fa ajabani diya un nayrayni diya un nayrayni ida tajalla ala al afaqi adhaba kulla mu wane ni nag diya nayrayni ginnaaw ba ko gëstoo gis na ni téere la boo xam ni yéem na ko téere la boo xam ni li mu jot a yër ci xam-xam yëpp gisul téere bu mel ni téere alxaaji ahmad dem bi mu ne ndax téere bi dafa yor ñaari bët ñaari bët yoo xam ni moom lay xoolee bët bii di bëtu charia bët bii di bëtu xaqiqa loolu nag moo waral Leral TV tey jii ñu ñëw fii ànd koog si nga xam ni suñu woy jur la di xalifu ki nga xam ni moom mooy alxaaji ahmad dem di sëriñ cheikh oumar dem yal na ko yàlla sàmm yal ko yàlla may wér yal na ko yàlla may gudd fan yal ko yàlla bàyyi ci keppaaru euh, waajuram ba nga xam ni lépp lu ñu soxla rek ci xadara bi dana ko yóbbu foo xam ni fu kawe suñu njort la tey nag ñu ñëw fii mu dalal ñu ñu di ci am mbégte di ci am contentement euh, ci turu ki nga xam ni moom mooy euh, PDG Leral TV wax dëgg yàlla xam kër gi Euh, cëslaay bi xam aussi tamit dayo bi kër gi am moo tax mu yabal ay njabootam ñu jóge ba ndakaaru ñëw ba fi war fee def lu tolloog ñetti fan ngir xool lépp loo xam ni am na ci dëkk bi tey jii nii ci mbaax ci teraanga ci xam-xam ñu daal di koy fésal kon dañuy bàyyi rek euh, kàddu gi ak suñu wayjur euh, mu daal di nuyonteeg ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi waaye tamit jox ñu ay kàddu kaddu yoo xam ni kaddu ñaax la kaddu yoo xam ni kaddu orientation lay nekk ñu doy loo ko ndax itam euh, kilifa moom bu waxee dañuy wax ni jëfe rek moom mooy li nga xam ni moom moo ci tegu euh, kon nag euh, papa ñu bàyyi la rek ak kaddu gi waaw. Ah, ok asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di ziar di leen dalal jàmm di leen ñaanal yàlla. gannaaw bu ñu leen nuyoo ci turu xalifa bi mu ngi nii toog euh, mu doon nag loo xam ne moom euh, dañ ci toll mu di xew-xew boo xam ne daf fi xaw at mu jot di siyaare suñu maam ju baax jooju alaaji Amad Dem yàlla na yàlla fayal ñu ko euh, liggéeyam yu yi ci lislaam liggéeyam yu yi ci alxuraan xam-xamam bu rëy njàngaleem taxaw bu mu taxaw ci askan wi yar leen jëme leen ci lislaam wan leen li lislaam bëgg ak li tere maanaam jàngal leen tàttagal leen ci nu ñuy sàmmwante ak sunu borom am na solo ndax jaam bu ganee àddina lu mu fi yàgg-yàgg dana dellu ci boroma kooku nag foog naa ne eh, def sa digganteeg moom rafetal ko sa njëriñ rek la yow loolu nag bu fekkee ne eh, yàlla daf fi wàcce góor gu yem ni alaaji ama dem radiyallahu taala anhu mu def dundam yëpp ci loolu ci njàng ak njàngale ak ci yar ak ci wane mbaax ci wane valeur génne xam-xam génnee valeur doomu aadama nit ku ñuul bu mu xeeb boppam am na valeur ndax valeur valeuru l'islam ku mu nekk ci yow war a soo benn doomu aadama te du ne da ngay am complexe de supériorité si kon euh, loolu moom laa doon dugalee waxtaan wi e, ñu bàyyi xalifa bi moom it xanaa mu jottali ci rek ay kàddu mu déglu ko e, xalifa bi nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm nee na gis nañ seen taxawaay ak seen jëf mu ne rafetlu na ko di leen ñaax nag ñun ñëpp ñu mbokk góorgóorlu ne senegal bu ñëpp góorgóorloo jàppalante yàlla ñu dimbale de ne ndax mag ñi fi nekkoon niñ daan def suñ ko suñ ko toppee bañ koo wàcc wala njëriñ rek lay doon ci ñun te njoo coono dana wàññeeku ne yenn coono yëpp. wàcc suñ ànd rek moo ñu ko teg waaye keroog bu ñu tolloo ci suñ ànd rek bu soobee yàlla danañ xam ne suñ mag ñi mag ñu baax lañ te yàllaa gën ñëpp incha allah waaw salaamualeykum yéen leeral TV nag góor gi sant na leen gërëm na leen mu ngi leen di yóbbante ci seen kilifa su ngeen demee ne ko taxawaayam bi rafetlu na ko sant na ko gërëm na ko te mu koy ñaanal yàlla fépp fu mu bëgg a yegg moo ko xam yàlla na leen fa yàlla yeggal yéen ay ndaw ngeen yàlla yàlla def mag yàlla na yàlla may leen wér. may leen wérale yaarab yaarab ba lépp lu ngeen bëgg def rek lépp lu loo xam ne aju na seen liggéey yàlla yewenal ko ak waa Asfiyahi Asfiyahi TV ñu ngi fi ànd ak ñoom ñoom itamit waa waa Asfiyahi dinañ leen dégg man seen rajo laay faral di déglu xam naa leen bu baax diine rek la ñuy yëngatu ko nag yéen ñëpp yàlla xalifa bi baa leen di ñaanal yàlla na yàlla mottali mébét yëpp. Eh, yaakaar yi yàlla bu ko yàlla tas eh, lépp loo xam ne moom ngeen ŋànk ci seen liggéey rek yàlla na ko yàlla yombal ba ngeen àgg ci ak jàmm yaa rek